كل سار وفي jour safar bu teroo fii si Touba li ñu njëkk amal mooy bale dëkk bi opération yu nu mel jàpp nañu nag mbooleem gox mbooleem acteur mbooleem secteur kenn wutewu ko ndigal li jéb na ñëpp te seen place liggéeykaay ñépp génn nañu kër yi ñëw nag ngir liggéeyal Serigne Touba naka noonee firnde bi moo ngi fii si première garage boo fi accès fii am na marché gis nañu ni kat ñëpp a tëj ngir doxe ndigal jël mbalit yi rek ko si ay paan ay soo wala sax nag ay saaku yóbbu ko teg ko ci camion yi ñu mën koo tuur yi ko defee marché yi gën a feex xal yi gën a yaatu njiitu marché bi di ko biiral waaw mbala mi respecté rek ndigali sëñ bi tëj place yëpp aay ñëpp ñu liggéey génne mbali mi ci dëkk bi yóbbu ko ci ci ruq-ruqaan yeeg ron taawal yeeg lépp ci la ma a jàpp marché bi ubbiwul non tey moom marché ubbiwul dañaa aay ñëpp yu tëj nekk ci liggéey bi jàpp nañu nag ay toni ton ñooy génn si premier jour safar bi nga xamante ni doon na jour bu am solo doon jour nettoiement muy association di daayira yi maanaam daal ñëppay génn fii bi nu ñëwee si xayra fekk nañ fi daayira kër Serigne Omar Diop ñoom it kenn demu ñu des taalibe yi indi nañu seen ay moyens mu doon camion mu doon rado fourchette mu doon également brouette dara manqué wu. liggéey bi waa ñi na waa kër Serigne Omar Diop jóge Mbacke Ndiobène ak ñii nekk Touba Xare ñoo ko ànd jëfe ndigalu sëriñ bi tey jii sëñ bi woote woon ne képp ku fi am kër walla dalwaay wala kii nga setal ko ba mu set ñu takkaloo ànd ak waa daayira fédération Serigne Omar Beeg mbooleem daayira yi nekk Ndiobène ak tuubaa yëpp ñëw pour setal dëkk bi. yéen beneen étape mooy marché Ocass fii nag mën nañu jàpp ni mooy xolu Touba ndaxte ñëpp bu ñu xëyee fi la ñuy ñëw fi la marché yi nekk fii communauté bay fal ñoo fi nekk di amal liggéey bu am solo indile les gros moyens yi mu doon ay engins boole kook tamit ku nekk di bàyyi sawaar waax si anam yu fasantikoo loolee nag ñu ngi koy def te bëgguñ sax mu feeñ ndax jàpp na ni kat ñoom lii ndigal la te ndigal jëf yi moo taxit fii ay tonnes ñoo fiy jóge ngir nag ñu mën ko yóbbu ca kàmb ya nekk si ginnaaw dëkk ba su ko defee mu mën a leer marché bi ñëpp mën fee dugg si jàmm liggéey bi nag bu ñu koy def danañ si ànd tamit ak ay bonne volonté yu leen di jàppale ñii ñu ngi joxe ndox ñii ñu ngi joxe café yi lii da koy firndeel. kon suba ba léegi li ngay def. waaw suba léegi alali Cheikh Fall. Ah, waaw ñun uh, daara Alioune Sall Fall mi ngi nekk fii diggante Touba ak Mbacke ci njiital si Naama uh, Seck général waaw Nour Daara ni kon yàgg ngeen def li nañ koo def nag jëpp jamono sëñ si jëmb Fall ba léegi uh, ndeysaan moom ku fi ne rek Alioune Sall Fall xalif généraux yi la fi nekkal waaw bari na moom ndax fi dañu fi yendu rek di séddale ba ngoon jot incha allahu rabbi moom bépp xidma boo xamante ni am na rek noonu lañ koy defee ndax mbaari ndogu yi nga xam ne moom la ñuy toggee ndogu Cheikh Amadou Baba ngi ñoo ko doon tabax ngeen la ko sëñ bi kër Seera Faye gi ci Thiès tamit ñun la ko sëñ bi sant ngir ñu def fa ay ay ay bâtiment sax ji sax jëwriñu fa lañ nekk loolu moo waral ndeysaan man jëwriñ jëwriñu soxna yi daal di teew fii. tey jii mën jàpp ni tubaa kenn liggéeyul place yëpp tëj nañu ndigal li daal mooy fexe ba setal dëkk bi ngir nag mën a accueillir gan yi ñu mën a màggal ci jàmm comme ni ñu ko doon defee.